Mm-hmm. ñu tegoon ay critères mm-hmm. tegoon ay barème mm-hmm. mu am ñoo xam ne dañ doon am par exemple soxla euh, trois cent millions pour créer une centaine d'emplois wala cinq cent millions pour créer deux cent deux cent deux cent mais ces gens-là ñi nekk ci économie intermédiaire boobu dañ leen laisser en rade amul benn Euh, stratégie de financement mhm. bu ñu teg pour accompagner leen mhm. ma leen ma ne ma ne ñii dañoo jël trente milliards mhm. def ko deer séddale ko boo xoolee li mu créé ci emploi ak impact bi euh, mën nañ ci am mbetteel. Mhm. est-ce que waruñu woon DER ñu créer des membrements. Mhm. Euh, bon je parle pas de microfinance. Mhm. mais ci yenn système de financement yi ñu créer de membrements intermédiaires. Euh, économie sociale solidaire bi ñu jàppale ko. mais ñi nga xam ne dañoo ñëw pour taxawal des entreprises bëgg a liggéey. soxla fonds. ñu taxawal aussi un fonds de garantie. pour porter ces PME là. ñu mën a créer des des des des. xam nga yooyu ngay wax am na ay fonds JPEG yu demee noonu nga xam ne ñoom ñooy jël euh, aspect yooyu euh, DER également euh, am na côté boo xam ne dafa am spécificité am mais lii ngay wax ni par exemple su ma jëlee man bi nga xam ne mooy sama secteur muy microfinance dañu am ñun problème boobu réglé nañ ko parce que dañu am ñeenti instrument yoo xam ne benn ci bokkul ak morom mi lii di Promise di plat de prix di Fonamif di PIMS ñeenti instrument de financement de léconomie économie sociale solidaire lañ te benn bokku ci ak morom la PIMS moom individuel yooyu lay jël rupture bi ñu indi nag ak le projet mooy ñun individuel yooyu dañ leen di lënke moo tax dañoo am orientation bu bees toujours ma di ko chanter une microfinance au service de léconomie sociale solidaire et une économie sociale solidaire une niche de création d' emploi massif link boobu nag doon may mun a ministre yi fi nekkoon ñu ngi may dégg lépp lu ma wax nag bu fekkee je te prends je vous prends à lépp lu may wax bu fekkee ne amul woo leen débat ma jàkkaarloog ñoom ñu leeral ko. nga bëgg moo organiser débat bi. waaw loolu maa ngi ko fii laa koy waxee parce damay bañ ñu yaakaar na ñoom dañ fee nekkagul tey ñoo nekk au pouvoir rek di leen sosal loolu laay bañ lépp lu ma wax. bu ñu mënee dugg nañu dugg. su fekkee ne lii may wax amut. si les intéresse ñoom nañu ma ñëw débat message ma ma ma dugal leen. nañu bu ñëwee ci débat boobu loolu nag moom mooy li amu doon économie sociale solidaire da doon dox yoonam microfinance di dox yoonam te pourtant li tax dénomination militaire yu ñu boole ñaar ñi dafa am lu tax te ma demaat la ci ma demalaat la ci cosaan bi est xam nga ne économie sociale solidaire ak microfinance ñoo bokk benn cosaan économie sociale solidaire cosaanam dëgg-dëgg fii Sénégal danga koy jox Mamadou Dia. loolu moo taxoon mu créer benn collège bu ñuy wax coopération ci école nationale d'économie appliquée boobu ma génne coopération boobu tax ENA mujj na ko nangu waaye mujj ko mën a doxal après dafa mujj naaxtaay foofu la économie sociale solidaire jóge la coopération boobu économie microfinance les groupement de femmes les organisations de femmes les tontines les mbootaay ñoo am benn dynamisme boo xam ne ci contexte lutte contre la pauvreté les bailleurs et les partenaires techniques jugés nécessaires ñu renforcer ce secteur pour leur permettre d'accéder aux banques qui ton micro c'est-à-dire moom mënuñu woon dem ci banque classique yi ñu def politique de microfinance. mais ñooñu ñooy rey nit ñi. ah ñu ñoo rey ñooy rey nit ñi. voilà. léegi nag 13 pour cent. voilà 14 pour cent. waaw pour ñoo xam ne dañoo néew doole. waaw loolu nag ñun indi nañ ci ay solution ñun yooyu. dañ leen euh, di réguler. non dañ koy réguler waaw. ñun fi ñu toll ñi ñuy financé nii 5 pour cent la ñuy yem ak ñoom. da ngeen di imposer. SFD yi. 5 ñu financé leen à 5 pour cent. voilà réglé nañu ak kenn ba pare def na ñeneen ñi. ñan ngeen réglé gum. Euh, kii ak UMTEC. UMTEC UMTEC. waaw léegi ñeneen ñi ñeneen ñi aussi parce que am na presque ñoom ñëpp ah, ay TMS ak ñoo ñëpp ay partenaires mais on a commencé ak UMTEC ñun foofu lañ jëm c'est-à-dire lépp volonté politique la ak courage. ba pare aussi am benn xarañ il faut de l'ingéniosité ba pare nga nangoo sonn aussi mooy nangoo liggéey. fii ku fi nekk ministre da nga nangu da nga nangu sonn da nga nangu liggéey nag. Euh, ah, monsieur man de man de ci ministère yi nekkoon naa ci mais da man mii tey lii ma lay wax nii kenn mënu ko weddi daan naa ay ñeenti fan du ma gis ministre. oto ministre du ñëw ministère ah du ma wax ban ministère. loolu amoon na fi mais mais man ñëwuma benn jour bu ma demul sama biro xalaatuma ko. am na ministre yoo xam ne da nga daan toog une semaine doo leen gis bureau am na ministère yoo xam ne danga nga daan gis parce que man nag lu bari moom xam naa ko ci réew mi da nga daan gis ministère yoo xam ne xoolal parapheur yi dañuy dem yóbbul leen seen kër ñu di ko fa signé. moo tax ma ne lii may wax balaa doon neex. mais tey avec la digitalisation.